booyoo baax a nu Cheikh Baye Cheikh Mor Niang doon suñu mag doon suñu lépp doon suñu conseil doon doon suñu xarit gën ma lu bëri itam jëriñ gën ma suñu soxla itam itam jëriñ ñu bëri xamuñ loolu su ma ko ndokkeelee maa ne gis nañ bu ci xam-xam ci jàng ci jàngale ak ci yar ci yare loolu mooy samara euh, ñuy feeñ tey ci jotaay bii wala lenn la ci feeñ euh, may kontaan lool li tax may kontaan euh, ci la mooy léegi muy Thierno xasida Baye boobu mu wax mooy Baye wax ci li mu ci wax te ba nga koy wax mu mel ni loolu béréb la te mu nekk tey réalité boo xam ne jaroon nañoo moom dañuy wax ne alawtu lbihaara zaaxiraat wa innani alawtu lqura wal mudna balha jibaala arumu rubal baari li nusrati diinihi wa ubrizu lil diini ljadidi misaala diiru tëj boobu mooy ñu war a taamu jiitay ak ñeneen ñoo xam ne nekk ak ñeneen ci sàmm yëpp kon mën nañoo wax ne kayu lislaam dal na kayu lislaam na waaye xelu Cheikh Ibrahim dal na te mooy xelu na ak fayda bi ndax ñii amee soxla waaye may wax loo xam ne maa ngi doon wax si daal yi ñu léegi te ñu bëri ñëw ci Cheikh Aboubacar mi wax ko ci njëlbeen loo xam si daal yi may wax dama ko ne téere bi maa mayewu leen ko mu ne ma ah, am na ci Medina de suñu nijaay yoo xam ne dañuy yónnee li ma ne ko déedéet arrêté leen loolu Medina dañoo bind lu yomb dañoo bind lu baax te lii eh, dafa nekk coono boo xam ne ku xam wax ma sax waaye xam lu rek jàng rek pour xam ñu métti nga jàng ba yàlla dimbale la nga xam yàlla dimbale li nga xam nga bëgg muy xam-xam dañ ko itteewoo di ko sonnee li gëstu méttee ngay def ay déplacement di dem fii di dem fële dajal ay wasaay ak nangam ak nangam ak nangam ma ne ko juut yooyu yëpp nga ko ko góorgóorlu ba génnee téere te kenn jàppale woon ci lu ko mool wala nangam waroon naa am sax ñu ko sponsorisé boo xam ne moom bu góorgóorlu ba génnee li ci xam-xamam ñooñu ñooy taxaw ne ñoo koy mool ci duuru na chemin nga xam ne ko soxla boobu ngay dem jënd ma ne ko maa ngi fàttaliku bàyyi ko yow laa wàll rakoolu madame bi nga xam ne ci téere bi njëkk a mool la bokk bi mu ko génnee ma ne ko mayoo ko woon te boobu la xam-xam gën a tumuraan képp ba la taalibe gën a néew boobu la dund bi gën a jafe waaye boobu Seydi Ali radiyallaahu anhu ak ak Baye Mbaye radiyallaahu anhumaa ñoom la ko joxoon ñu wër dëkk yi daal di di ko jaay dañuy ci àll di France benn dëkk ñaari fan ñetti fan bàyyi ko ci garanti ne képp ko jënd na nga am doom di ko mën a jàng te boobu ñeenti ci dem lañ ko doon jaayee. ma ko man biñ demee kër yoo xam ne li may wax nii sama yaay moom mu nekk dafa ànd ak ba mu ci jëndoon ci ñeent fukk def ko ci waxal ne may waaj a tari alxuraan naa ko jël mu ne ma la moo ko indee émission ci daara ji suñu benn mag di wër laaj addee yooyu jamono bi ànd ak bay am bay am bi te yàlla yàlla dem ñoom ñaar mu am moo ko ma jox ko ko ba bi sa tey bi yëpp ma ci gannaaw bu génnee àdduna sax maa ngi wax ay doom ma ne waaw ma ne ma ne bàyyi boobu mosu koo maye ci mool bi kaas bu la baax bi ci tegu mosu koo mool maye ko moo tax may wax euh, fidaal yi léegi ma ne ko buñ ko maye nañ ko jaay parce que lii li ci nekk ci xam-xam dégg ak njëriñ dafa bari te dafa mel dafa gën a gën mooy sant yàlla ndax. ñoom bàyyi loolu duñ duñ mooy li may wax nii mat na léegi mat kaar wala mat na fu kaar fii ci kër bàyyi benn waxtaan bu benn mooy bi ñu créé ne créé une commission boo xam ne dañuy bindaal histoire du Sénégal moo waxtaan fii ma ne yéen jàngkati tubaab yi nga xam ne réew mi ñu dëkkee li ñuy bind ci français lañ koy bind bàyyi liñ bind lépp xale ma arab la xam ne ma ne leen fi ne am na lu leen interpellé yéen dund ngeen ak am na yoo xam ne dund nañ ko ci saa dund nañ ko di dund tey ci réew mi dàq leen a jàng am na ci yoo xam ne yéen a leen si góof bu ñu leen bàyyee suñu si ñun parce que li ngeen wax nii tubaab yi ñu bind ñii ñooy seen i ndono bu ñuy bind si ñun loolu la jël prendre rek loolu la ñuy indiwaat ma ne comme ñun xam nañ ñooy ñan xam nañ suñu bàyyi ko xam nañ ñooy te li ñuy jàng ba li si bind ñoo leen ca raw fuuf wala am na ci yoo xam ne ñoo leen ca raw fuuf bu ñu leen bàyyi suñu bopp yóbbu ci ñun wala dooy wax ne eh, ku sa wujj di sërëb doo sax te ñiy bind ci Sénégal li ma déggagum ne bind nañ ko ci ñun ñëpp dégg nga ne jaru ko loolu baaxul ci ku ne dañ lay tuddee borom da nga dem ba ñu la tuddee borom xam-xam kenn wax ci kër ma ne li tax may may may may may may contesté dama dégg koo xam ne tey ci ñuy sukkandiku ci borom xam-xam yi ci réew mi ci ne ci histoire kenn bokk dama fàttaliku 1983 ba wala Abdou Diouf toog bees premier gouvernement am ñu formé formé délégation bu war dem Touba ci magal bi te jiite woon délégation bi muy Madou Fall di di di may wax ni bëgg tudd parce que ci rajo may wax te réew mi am nañ benn koo laaj mu nekk mu bokk ca délégation ba bay Madou Fall ñëwee di ma agsi ci moom dafa taxaw insisté ci moom ne ko kii li ma indaale ko taalibe ci yàlla te moo ëpp lu mu bind ci Sëriñ Tuubaa tam sa taxaw Tuubaa mu ne histoire na ko loolu mais nag loolu mu def histoire nangu ko xam ko maa leen daay mooy gën li muy ci bàyyi sax éne naa ko doon dafa nëbb boppam wane leneen bañ def ko conférence jox ko ay document yu bari ci bàyyi mu ñëw mel na dem Mauritanie man leen neuf ans la def gëstu boobu ku taalee bàyyi nekk daanaka ci Afrique taxaw na ko magal Sëñ Tuubaa suñ doon ba bi am na ñoo xam ba ñu ay doomo ngi bi ñu doon dundee balaa ngay def cinq cent kilomètres wala wala six cent kilomètres boo war a dëkk Sénégal nga baax ñu ne loo bind ci moom ma ne la bind du wér wala am na ci loo xam ne du wér loolu bopp ñu ngi ñu dundal dundal leen li nga def nii Cheikh Amadou Ba euh, ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ministre ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla wërsëgal wërsëgal la na ko yàlla na ko yàlla dolli xalam boo xam ne xalam mu rafet lay doon yàlla daal dafa la tabakkul alal kitaaba yàlla dolli sa faham li nga lay encouragé bu baax li may dolli di ko wax daal mooy déedéet duñ ko maye nañ ko jaay képp ku xam-xam itteel la bàyyi itteel la dégg nga dana la jàllal nga làmb sa boos génne dara ci ñuy jàpp am na teew yu fiy jaay ay 10 000F ay 20 000F yoo xam ne daanaka ay exemple daal rek dafay wax ci la wax loo ne du dul daal dara rawatina téere bi nga xam ne plus la téere rek war na laa itteel ndax Baye moom bokkutoon ci boppam liggéeyal toon boppam gis naa loolu liggéeyal ñu ngi ndokkeel suñu suñu doom suñu jàmbaar nga xam ne moom itam eh, suñu rakk yi ak suñu jàmbaar yi wala njiit ñu nag ñi muy professeur Ousmane Kane Euh, mi ngi kontaan bu baax ñu koy gaawaa ak ñu ci woon ko ñaanal yàlla mooy itam ku ne xam ne yaayam doon ak taxawaayam ci diine ak yar ak jàng jàngale ñu koy ndokkee bu baax ñu ko ñaanal yàlla waaye ma di leen ma yokk leen si ma wax loo xam ne su ma waxee bopp la